ngi rafetlu bu baax euh, ndaje mi ndaxte euh, bi ñu duggee ci vingtième siècle léegi dafa am ay euh, coppete yoo xam ne dafa duggoon ci njàngale mu kawe mi coppete yooyu mooy tax ba nga xam ne diplôme yi nga xam ne dañ ko daan joxe ci enseignement supérieur ñu wàññi leen ba tolloo ñett rek ñu naan L MD comme licence master ak doctorat biñ ko defee ak léegi. dafa am ay jàngat yu bëri ay coow yu bëri yu ci am parce que nit ñaa ngi laajte waaw ñen ñoo fay jàngale ñen ñooy jàngale ci université yi ñen ñoo leen di jàngal naka lañ leen di encadrer yan diplôme la ñuy am yooyu yëpp nag moo taxoon tey jii ñu ne nañu leen daje nañ woo université yi nekk fii yëpp ci Sénégal yoo xam ne ñi dañuy former par exemple infirmier ak sage-femme université bu Thiès mi ngi fii université bu Ndar mi ngi fi université bambe yi mi ngi fi université Ziguinchor mi ngi fi ñooñu ñoo koy def comme université mais yemuñu foofu dañu woo école privée yi bépp école privée boo xam ne bii anak supérieur anak sup reconnaître nañ la invité nañ la invité nañ ay syndicat syndicat professionnels yi indiqué nañ association de professionnels yi loolu lépp pour rek finalement ñu jéem a xàccandoo dóorandoo def cadre de concertation boo xam ne bii ñii nga xam ne ñoo ngi leen di former tey fii ci Touba ak feneen ñu génnee vraiment ñu bañati am problème yi nga xam ne ñun ñii ñoo leen jiitu ñu amoon ko maanaam ay problème de reconnaissance ay problème mu insertion ay problème de recrutement loolu daal moom moo doon tax moom doon solo su ndaje yi ñuy euh, ñu tënne ko fii ci Touba euh, waaw loolu daal moom mooy solo si filière boobu pour que am euh, war a fi am gis nga université bi ñu koy tabax boobu jàpp ñu woon ne science infirmière dina ñëw euh, c'est par la suite bi ñu demee ba 2019 bu Covid bi dugg lañ sentir ne dafa am ay besoins fii ci Touba ndaxte jigéen ñi amuñu woon ñoo xam ne ñi ñoo ngi leen di toppatoo faj mi tamit demeewul noonu boo xoolee bu baax hôpital bëri na fi ñetti hôpitaux ñu ngi fi centre de santé yi nekk fii ci Touba bëri nañ torop mais ba léegi population Touba ni mu toll dafa manqué woon vraiment ñu leen téye moom moo tax semaine sëñ bi ne ñun daal UFR bi ñuy ubbi muy sante infirmier ak sage lañ ci njëkk fa ñu yaakaar ne wax dëgg yàlla loolu lu am solo la moom moo tax vraiment ñu ubbi filière bi pour ñu jàppale ñi nga xam ne ñi fi nekk nii dañoo feebar fii ci Touba muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw. ndax du am jafe-jafe wàllu làkk. ci diggante français ndax ku xam université bi xëy na li ëpp ci base langue bi arabe la. Mhm. formation bi ndax du am jafe diggante langue française bi ak arabe bi. loolu question bu bu am solo la. dafa am solo parce que bi ñuy wax naan dañuy recruter dañ ne woon bon ñun daal dañuy dem comme ni ñuy def ci yeneen université yëpp ñu jël ñi nga xam ne ñii série scientifique la ñu def ñu jël leen mais il s'est trouvé que expérience bi ñu am ak li ñuy rapporter sur le terrain. beneen leneen la dem nañ ci ay écoles yoo xam ne yii dañ fa yónnee woon ay ay ay ay ñoo xam ne ñii ay arabisants lañ en quelque sorte biñ leen laajee yéen ñii lan ngeen fi def dañ ne yow ay la yow ñun xamuñu sax li ngeen dox parce que li ngeen di làkk dégguñu ko ñoom bac arab lañu amoon. ñooñ nga xam ne ministère moo leen fa yabaloon ñu ne ah ñun kat am nañ problème kon lan la ñuy def pour que ñii mën a am diplôme ñu commencé leen di leen forme donc au lieu ñu def ñetti at ñooñu dañ leen former ñu def ñeenti at benn at bi moom mooy taxaw jàngal leen français te ñoom ci seen bopp ñooy nettali de ne gis nga bi ecole bi ñu demee ba troisième année ñooñ nga xam ne fi mu nekk ni ñoom ñoom ñoo amoon bac littéraire yi eh, bac arabe yi ñoom ñoo rawoon seen seen waa classe pour dire que ne rek langue bi warul mën a nekk barrière parce que ñun ay matières scientifiques la ñuy jàngale am nañ ñoo xam ne ñii par exemple ay égyptiens lañ am nañ ñoo xam ne ñii ay algériens lañ ñooñu arab la ñuy làkk ñooñu noonu arab kese kese kese la ñuy làkk dégg ñu français mais dañuy jàngale dañu nekk ay médecin dañu nekk ay infirmier looloo tax ñu ne nañ ko ubbi te suñu classe yi ñuy jàngale ñun commencé nañ ubbi nañ actuellement am nañ ci lu mat ñeent ñoo xam ne ñii bac boobu la ñu am mais pro loolu nekkul seen problème actuellement donc ñoo ngi suivre programme yi bu baax parce que en réalité ñun tamit suñu programme yi tamit université la ñu mais dañu ubbi ba nga xam ne eh, dañ ciy wax wolof dañ ci def lépp du looloo sax a tax mais rek dañu bëgg a wax ne wax dëgg yàlla eh, ñooñu nga xam ne arab ak arab rek lañu am ñoo ngi góorgóorlu ci ci génn bu baax a baax. ndaje mu ne maanaam bu jeexee dana am njàngat buñ ci jëlee. Mhm. ndaje mi ban njàngat lañ ciy jëlee si si si si si. bu ñu seetloo que ni ñeenti université yu bokkut def nañ fi ay présentation ci seen programme pédagogique ndax bu ëllëgee danañ am benn euh, curricula boo xam ne c'est harmonisé pour la formation très bien question bu am solo la euh, du rek sax yemuñu ci ñeenti université yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal mais bu ngeen xoolee bu baax am na ñeenti yeneen université yoo xam ne yi ñoo ngi fi am seen représentant ngi fi Côte d'Ivoire Togo Bénin ak Cameroun ñooñu tamit dañuy ñëw loolu lépp pour lan la woon pour véritablement wane ne li nga xam ne nii moom moo am fii moom mooy am feneen encore donc euh, donc dañu bëgg a wax ne dañuy harmoniser harmonisation bi mooy fa mu nii ñi nga xam ne fi mu nekk nii ñun ñëpp ñooy jàngale matière bi ñu waroon mën a tënku par exemple ci programme loolu yomb na sax am na ba pare. parce que OMS taxawal na ko ba pare loolu dootul problème bi problème bi kañ mooy naka la ñuy defee ba ci université yooyu ñu jàngale fa jàngale bu qualité moom moo tax ñu ne ñun yaakaar nañ ne université yi ak école privée yi nga xam ne yi ANAQ-Sup ñoom ñoom ñoo leen accrédité ñooñu danañ mën a jàngale ñu génne fa ay infirmiers yoo xam ne yi ak ay sages-femmes yoo xam ne yi bu ñu génnee vraiment danañ mën jël en charge population sénégalaise Donc, revenir en résumé en français. Euh, merci Donc, euh, il euh, faut comprendre que au, début des années euh, de, de, de, de du XXIe siècle, il y a une réforme dans le système donc, de l'enseignement supérieur. Ce système-là, ce système qu'on appelle donc le système LMD, a vu le jour. Mais il y a beaucoup de polémiques. Les gens se posent énormément de questions sur les diplômes qui sont délivrés, sur la formation, c'est qui enseigne et quoi enseigner. C'est la raison pour laquelle cette rencontre donc a eu lieu pour être tout simplement un cadre de concertation interuniversitaire pour que, in fine, nous puissions véritablement parler le même langage. Parler le même langage, ça veut dire quoi Certainement avoir un programme harmonisé. Ça veut dire quoi Mais avoir donc, asseoir de bonnes bases de formation, donc de qualité. on sait très bien que les universités donc ont des moyens donc véritablement euh, voilà si par exemple tout le monde se met à la pâte on pourra véritablement ben délivrer des soins de qualité ça c'est véritablement notre bataille que nous devons mener pour que véritablement la formation en sciences infirmières et obstétricales se passe dans les universités et pas ailleurs euh, l'obstacle linguistique par rapport par exemple aux diplômés que nous recrutons qui ont un bac arabe, eh bien, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je faisais partie de ceux-là qui disaient au départ que, ben, écoutez, on va recruter des étudiants donc, qui ont un bac scientifique. Mais force est de reconnaître que même les gens qui ont un bac euh, littéraire, les gens qui ont un bac arabe, mais ils se débrouillent pas mal. Je viens tantôt donc de, citer, de, de, de, de raconter une histoire qui s'est passée dans plusieurs écoles, hein, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur envoyait des étudiants dans les écoles privées. Et on a constaté que ces étudiants qui étaient envoyés dans les écoles privées ne savaient pas parler français. Au départ, ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on fait là Par la suite, les gens ont fait donc des cours de renforcement Et à la fin, au lieu de trois ans, c'est quatre ans de formation, mais ces étudiants-là qui ont donc un bac arabe sont sortis majeurs des, des, promotions. Donc je pense très bien que véritablement, on ne devrait pas tout simplement mais créer une barrière, une barrière linguistique. Ça n'a aucun sens. Parce qu'ailleurs, mais des gens parlent uniquement français, ailleurs des gens parlent uniquement arabe, sans pour autant... Ben, ils sont donc de bons médecins, de bonnes infirmières et de, et de bonnes sages-femmes. l'implantation de cette filière à Touba, mais ça répond à des besoins qui sont exprimés par la population. C'est la population de Touba qui a besoin de ça. Au départ, <laughs> mais cette filière n'était pas donc inscrite dans l'organigramme de, de, de l'université. Mais avec la Covid, on s'est rendu compte que c'était une nécessité. Dans le département où je suis, nous avons ben, cinq autres, euh, comment euh, cinq autres euh, membres, n'est-ce pas Cinq autres comment départements. Dans l'UFR où je suis, il y a cinq autres, comment cinq autres départements. Mais on a commencé justement par la filière sciences infirmières pour former donc des infirmières et des sages-femmes pour, non, pour, donc, pour répondre tout simplement aux besoins exprimés par la population de Touba. Compte tenu véritablement ben, de tout ce qui se passe, bon, Touba c'est devenu très grande ville, <laughs> mais si par exemple ben, on a plusieurs hôpitaux, ben, écoutez, <laughs> il faudra remplir ces hôpitaux-là. <laughs> voilà, c'est pour cela véritablement ben, euh, de cette faculté-là au sein de Touba, c'était la bienvenue. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci.